na ci la revue des titres mooy lecture de la une des parutions deuxième incursion bi ci la ñu nekk muy talaata gile dañu ci ànd ak nag ak xam ngeen ko monsieur le maire de la ville de Guédiawaye monsieur Ahmed Aïdara monsieur le maire nuyu naa la. maa ngi lay fay. <laughs> quelle démonstration de force. <laughs> yow ban kii lañ lay jox. ba damaa waaru de leen faf jox ndar. ndar de ah? Ah, ngi Dakar kay. Oh, nga dëgg de. ma jox la ndar rek. côté localité. waaw nga jox ma ay waaw non Rufisque moom Mame Mbaye moo fa nekk. wala Sam Notaire. waaw wala Sam Notaire. Sam Notaire baax na jëlal Sam Notaire. Sam Notaire baaw Sam Notaire ñeme naa ko. jëlal Sam Notaire. quelle démonstration de force. <laughs> waa ci loo ne nag nama ah, naa la jarbaat de waaw léegi day nekkatoo jarbaat de léegi moom. léegi lan la cour des <laughs> la nga ne. cour des grands. Ah, ah. waaw cour des grands damaa bëgg loolu. xam nga ñenn ñi dañoo jàpp ne boo boo boo boo jugee ci célibataire yaa gi rek. très bien daal di daal di takk soxna rek gars yi naan la léegi yaa cour des grands. Mm. ñaar la tàmbalee jëm ñeent. Ah, ah dégg naa dégg de yaa sama mais non mais attends loolu ñaar dem ñeent. jeex na loolu la ah. takk leen ñaar attal ngeen ko te mën a tolloole. Uh-huh. takk leen ñett. Mm. attal ko te mën a tolloole. Mm. takk leen ñeent. Mm. attal ko te mën a tolloole. soo leen ko mënul ngeen yem si benn. ngeen yem ci benn waaw. waaw xanaa yàlla ci boppam pluriel la commencé. <laughs> waaw terminaison S bi la mas naa la commencé. ah waaw ñaar léegi nag. kon man kon ma ne baax na. <laughs> waa Régé ngay toj de. non boo doolee sa boo doolee ñu ci mais garaaw comme que kii de doo ko ñëw bëgguma yóbbu fiddi garaaw loolu. Ah. léegi loo loolu loolu mooy cour des grands. Ah. waaye waaye euh, benn borom xam-xam nee na. Eh. xam nga yàlla. Hmm. ñun ni ñuy rusantee nii. Hmm. waaye moom de Mouhamed Diom ndeysaan man dama ko rus nijaayam la mais dama ko ko eh. dama ko rus. Eh. ni ni ni nit di nit. Hmm. yàlla noonu lay rusee nit am na nit ñoo xam ne. waaw yàlla ji da leen a ah. waaw. su la yàlla rusee na. Mm, mm. bëgg la sanctionné. Mm. bëgg la sanctionné. waaw waaw. bu la rusee bëgg la sanctionné. waaw benn soxna la leen. <laughs> ma baa ngay ma de. <laughs> xam nga liy taxoon ma namm <laughs> ah, ñoo la raw ñun ñoo la gën a namm. borom xam-xam yee ko dëgg la ndeysaan. su la yàlla euh, rusee. Euh. yonent yàlla Ibrahima daa nekk xaritam. borom bi rus ko. ba keroog bi mu waree jël bakkanam. jaar ci ay fem la def. ci IFM la def nii ba ba. <laughs> ba daanike ba ba daane ko <laughs> dégg nga da lay rus. en tout cas doy na bu la rusee bëgg la sanctionné. Mm. nit ku deful lu deful moom. waaw waaw yat wi day dal de. bu baax. voilà léegi nag. <laughs> bu la bëggee sanctionné pire te rus la. waaw ah. léegi moom benn sox soxna rek la lay dégg. <laughs> ah loolu leer na. su tukkee nga xaar. Euh. bu feebaree nga xaar. dangay xaar bu gisee mbaax nga xaar. nga bu meree nga xaar. nga xaar te am na ci yenn yoo xam sax dalay woddul. musiba la wuy ma euh. kiloot baa ñetti jiin mbaaj wane ginnaaw. <laughs> loolu musiba la. wane ginnaaw dem. mais ñu ngi waa koñ ba dégg waaw waaw koñ ba waaw koñ ba tudd <laughs> yi ko wër ay ca ñu dewaare Vénus Dieng Awa Ndiaye ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Vénus Dieng Awa Ndiaye ñu ngi leen di nuyu ay déglu euh, ñu buggaan ngee dane fan a ne mais moom la ñëpp di laaj waaw ah, waa ceeneen ndumbelaan mi ne keroog keroog seetaan keroog de ndumbelaan toj na ko seetaan naa ko <laughs> man il faut nga jël ko émission seen détail ah, non mais foog nga ñëw parce que man li ma ko bëgg a laaj dëgg dëgg dëgg xëjul ay ndumbelaan yi dama bëgg dama ko bëgg face à ba tayam bi soppeeku. parce que temps yi moom temps yi mi ngi mi ngi développé de. na ñëw ak man. Ah, seen jotaay. na ñëw ñu may président Bougane lancé nañu le défi. amul xaar ñëwal seen jotaay na ñëw. <laughs> non day ñëw <laughs> loolu leer na. bu ñëwee dootu ko defati. <laughs> ay ca dégg loolu. Euh. terminé kaa ñëw ak ci. Hmm. président Macky Sall neexul ba neexul mais gis nga li ñu naan euh, Dieye grand mais Macky n'est pas de. Hmm. li Ivoirien yi di wax. Euh. Dieye grand de. mais Macky n'est pas de. Oh, loolu la mooy staru opposition bi guddiñ toll nii. mooy kan. mooy Macky. waaw waaw. am Macky indil Macky am makki indil te hmm. la ne woon dana nal opposition bi. Hmm. ni li moom. réduire l'opposition à sa plus simple expression. cey. Macky projet ba ca la ne. ngi koy daa mel ni mi ngi koy réussir. moom fu ne rek ma nga fay ma ma nga fa ne ciix rek daa mel ni. <laughs> mboolem seen parti coalition ci Macky. journal bi ne fi ngay xamee ne Macky Sall mii ci boppam ca loolee la ne exemple Idrissa Seck. ah oui. seen coow ñoom ñaar 2004 la commencé. adversité. atroce nag bu mitti lool. waaw waaye ku ne woon Idrissa Seck adduna dana ëlbati ko. kenn ba mu ëlbati bestam. kenn du ko gëm. jugee ci opposition bi dem ànd ak Macky. muraakebe conseil économique. waaw déggoo ma de. social journal bi ne hmm. mais Macky ca. Hmm. exilé Karim gracier Khalifa. Hmm. ñu ne déedéet mu tas indi 2019 tas. coalition jot na coalition jot na. mais grand mais Macky n'est pas petit. Macky mais Macky tamit nag Macky tam Macky Macky xanaa mais dëkk day am opposition. ah mais ñëpp mënuñoo far ci yow. waaw ah waaye yow lii daal lii kenn xamul lii lan la. <laughs> day rawaat de. <laughs> Macky daal. ginnaaw nag mbóot yi Thierno Alassane Sall wax. Mm-hmm. ci pétrole bi. Mm-hmm. journal bi nee na Macky Sall nag dafa war a wax dëgg nag nit ñi nag. ah. Sall nag wax nit ñi li xew dëggantaan njaay ci affaire pétrole bi lee. jàmmalaay moom. jigéen ñi dañoo baare taliba. ñàkkum ndox. ñàkkum ndox cee jamono ñuy diil di def lu ne. ndeysaan fa jëri ne gis nga majorité bu bees bi ñëw Idriss Seck ni mu dugg. Hmm. malaise commencé na caa am. déedéet kay. ah <coughs> xoolal séddoo bi. waaw waaw. waa PS. ak waa AFP. yan jéego lañ def. ah moo jaaxal ñëpp de. non dama lay laaj yan jéego lañ def. <laughs> moo jaaxal ñëpp de. dégg Alioune Fall ministre conseil. Mm. nee na Idrissa Seck ñu bëgg ak bañ. Mm. mais Idi est devenu une réalité politique. quand kenn mënu kenn mënu koo kenn mënoo kenn mënul dem ba mu am ay alliés ak ñàkk am ay alliés. ci politique bi la bokk. déggoo ma de. day bokk. Idi day bokk. li ma naan ñoo cay dem. ñoo cay ñoo <laughs> cay dem ñoo cay dem. <laughs> mais Idi mii. Euh. moo cay dem. moo cay dem mos. idi am allié. ñàkk am allié. Alioune Fall ministre nee na. Mhm. mais Idrissa Seck. est une réalité politique. waaw loolu moom loolu sax yaakaar naa wax. loolu moom biti la fanaan. voilà Alioune Fall yemu la parce que nee na. gis nga Idrissa Seck li mu def. Mm, mm. lu defu la. waaw. Mm. lu defu la amul benn wor bu ci ne. parce que gars yi ne waaw Idi dafa wor daa trahir patati patata dugg na bi mu ne c'est faux. ah warul. ah non. Aline Fall la wax. mais lii xew nii. Mm. Macky ji kan moo ko fi indi 2012. ah mm. mais Idriss Seck bokk na ci ñi ko indi woon. Mm. Idi kay daa dellu. ah daa dellu. Ah, kay. waaw ñi war ñi kay. xanaa mooy ñu fi eh. jëlee. waaw. fi jëlee. waaw kay. waaye kii. 2012 bii nii. Hmm. waaye et puis lii ñuy qualifié de deal. non. du deal. déedéet. ah. taxawaay suñu démocratie bi fi mu nekk nii la. Hmm, hmm, moo ko laaj Alioune Fall moo yor samay kàddu de. Alioune Fall moo wax dégg nga ah, ah. xoolal gis nga politicien yi. Eh. booy wax rajo waxal lu leen neex rek. <laughs> mais gisoo làmb yeeg politique. gaa yi analyser tout. billaay ku analyser. wax lu neexul Balla Gaye waa këram dal la wax lu neexul Modou Lo waa këram dal la nga analyser wax lu neexul Idriss Seck waa këram dal la nga wax lu neexul Ousmane Sonko waa wax lu neexul Khalifa la nga wax lu ne te loolooy démocratie tax gars yi léegi soo analyse yi koo invité télé mu bañ. waaw dëgg sa liggéey rek puus. waaw ah, waaw déggoo ma de. le quotidien yéen kaay gis nga école privée ak parents d'élèves yi. Hmm. guerre. li bari na ci lool. guerre mi ngi coow li bari na ci de. Insa eh, Diallo directeur des cours privés. les Mamelles nee na école privée yi la ñu warul jël def ko marchandise. <laughs> ñetti weer. comme commerce de. la ñuy fayloo gars yi. wallaay problème la. ah yow jafe-jafe la. Macky ngi tëcc na opposition bi lii lan la. <laughs> réduire l' euh, opposition à sa plus simple expression. ay kii yemul sax ci loolu waay <laughs> kii nalu leen de kii dalee na nal ba pare dafa andi li nga génnee kii mooy boo lekkee orange. waaw yooyu ngay gerte. idi 2019 nee na tasar. coalition Ousmane Sonko ba nee na tasax eh. dégg nga eh. source ané waaye gis nga moom it këram a nga yëngu de ah, waaw diggante maître Moussa Diop ak yenn membre grand groupe WhatsApp bi mouvance hmm. présidentielle hmm. tàng jër parce que Moussa Diop dañ ko dañ koo génnee ci groupe bi ñu tuddee GIR groupement d'information républicaine bi du yomb maître Moussa Diop xamal leen carrément ne leen hmm. bi may défendre Macky Sall yéen foo leen new ah, waaw foo leen ko coow lii dox ci diggante Macky Sall si am bi. ak Barthélemy Dias mooy siège APR. nee na sentirul benn yoon ñii ñuy wax naan ay cadre la jàppale ko. maître Moussa Diop moo ko wax. élection présidentielle. famille la jël exposé ko. keroog bi mu naan nañ leen jël Ila Touba. Ah. laal ko yóbbu ko illa Fouta. ay waxam ja. waaye eh eh nee na famille la jël exposé famille. waaw waaw. dégg nga. Cheikh Baar Baara ko waaw. Antoine Félix Diome. Mm. Karim Wade Khalifa. un parquetier intraitable. Cey. ah position bi mu nekkee ku fa ah, ne. ñu ko récuser nag bëri nañ de. nu lay traité. ñu ko récuser bëri na de. gars yi danañ ah bëggu bëgguñu ko ànduñu ak moom. waaw waaye rek. ah locale yi lañ war a tëgg. ah. mooy ñu naan ay couplé. c'est clair mais Macky Sall lan lay xaar pour tëgg élection locale yi. locale yi wala pareegul ba léegi ci gars yi. ñëpp di laaj de. pareegul ci opposition bi. waaw dit xam naa ne moom bu paree bu pareegul nag moom tonton foog ñu laaj. <laughs> Macky moom bu dee ba léegi man xamatuma ci Macky <laughs> i kaay ñëw ak ñun ci Barça wala Barzak bi. Uh-huh. Cey lëmbe na jamono dëj yu dul jeex ca Mbour ak ca Joal. Uh-huh. dëj yu dul jeex ca Mbour ak ca Joal. wallaay l'observateur nañu société civile bi xam nga lu muy sàkku fi mu nekk nii. lu muy sàkku Aminata Touré. Mm. Amadou Ba. Mm. Aly Ngouille Ndiaye. Mm. Matar Cissé. mais nañ leen yóbbu of nag. te du ñoom ñoo te du ñoom ñoo doon reddition des comptes rek. waaw nañ leen reddition des comptes. ñu waaw ñu càmbar leen bu paree ñu reddition des comptes. ñu càmbar leen yi li kaa ñëw ngi ci dañ mu mënta ne. ñu eh. ngi nii. Mm. l' impossible day. Mm-hmm. kenn xamul Barça ak di ji la la. wallaay ndeysaan. dégg mm. na ngay dee rek na ngay dee rek ca waax yi ci waax yi. léegi ñoo jógee woon réew mi nag. Mm. ay Omar Gueye Talla Sylla. Omar Sarr maître Nafissatou Diop Cissé. waaw ñoom fu ñuy mujj. Modou Ndiaye Rahma. waaye léegi ñooñu nag. Hmm. seenu ëllëg day la kii di wax nii ak Idriss Seck ak ñëw bi mu ñëw ci Macky hmm. xam nga politique tam lii tax man daal man daal man daal mënu ma <laughs> man daal doom day doom day man mënu ma politique daal dafa jax non mënu ma ko mënu ma ko surtout bu Sénégal les écoles yéene kaay ñëw ñun ci Idriss Seck hmm. ministre yi mu jël ministre yi mu jël dugal leen waaw ah cadre yi d'accord uñu yéen ah ah oui grincement de dents am na foog mu yëngu parce que cadre yi ah. dañ ne Yankhoba Diattara warul nekk ministre quand même yorinam ca meeru Thiès ca boppam mais dañ koy épinglé déedéet kay ah oui ah, ah Aly Sala Diop. Hmm. mais mag moo xam ne yow Idriss Seck sa patron sa yaa ko mag. 62 ans. ministre mais kooku nu ñu defee ministre. te Idriss Seck ni mu leen daal jël waa Thiès donc mi ngi nii. ah nee na la Thièsisation la. <laughs> wuy ma. Eh. Idi daal nitu Thiès. <laughs> waaw Thiès. benn dëkk ñaari kàddu. <laughs> waaw barke yonent bi nitu Thiès daal la jël def leen ay ministre léegi yeneen parti la. ñeneen ñi ne moo ma jaaxal. la CNK ñëwoon ñun ci policiers yi. Hmm. juge beeg juge beeg juge procureur xaw nañ leen a rey. xas nañ leen ba ñu ràpp ci benn commerçant boo xam ne dañ koo jàppoon di ko torturer. Sall moom dafay war a jeex loolu. sëyum politique moom Macky Sall moo ay ci tas. kan ci tas sëy rek. politique ah. rek kii tas na LD. briseur d'alliance tas tas IDI 2019 tas coalition Sonko. waa léegi lu fa desati. xaw ma ko de. <laughs> moo jaaxal ñëpp xaw ma ko xaw ma ko <laughs> la li fi des daal xam naa ne moo jaaxal ñëpp. dégg critique yéen a kaay nañu. critique lu mu wax waaw mu waaw Adama Gaye hmm. moo xamal Ousmane Sonko ko nekk suñu démocratie bi kenn du ko wanteer. ci Adama Gaye kenn du ko wanteer. ma nga ca kër di tirer les waaw waaw direct news ñëw ak ñun ci. Hmm. nii kii mooy Messi Léo Messi ngi nii. mooy kan. Macky. <laughs> bari pexe. tas na PDS. Messi de bari pexe la gën. dagg bopp PS ak AFP. Hmm. Macky Sall comme jàngoroy cancer. cancer intérieur mooy bi ci biir. quand même jàpp parti politique yi ak coalition yi. Mm. war naa leen ba maa reddee taal yi. idi 2019 ak coalition jot na moom ndox maa ngi leen di duggee fu ne. gaaw nga fëkk na. kii la doon Ablaye Wade te mooy messi politique Sénégal. donc c'est le messi de la politique. waaw punkalum APR yëpp. yëpp jëti na leen déraciné leen. <laughs> te dara yëngul ma looloo ma jaaxal. Adama Gaye waaw oh. lu tax ñu dàq Aly Ngouille Ndiaye. Adama Gaye la ko Macky Sall wax. Boubacar Aly Ngouille da le poli le premier policier espionné. <laughs> waaw Aly Ngouille Aly lu mu ko mën dalee moom it. <laughs> premier policier ngi mooy Macky. waaw deuxième bi Aly Ngouille. patron de la police troisième wàcc. le premier eh. flic espionné par. <laughs> le deuxième. son second son second. doy na waar. na. ci politique Sall nag li mu bëgg mënul ne. waaw ah. réew mi. foog mu am opposition nag. waaye man ne yàlla ci boppam am na ñoo xam ne gëmuñu ko. waaw loolu sa démocratie nag sax day tax. yow nga bëgg ne ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. danañu ñëw ci yow. en tout cas pareegul de. dina ñëw dina ñëw après ci mouvement yeeg plateforme yi. <laughs> mouvement yeeg plateforme mouvement yeeg plateforme yi ci la ñuy ñëw après xaw xaw ma nag loolu moom monsieur le maire waaw ah, monsieur le maire da ngay wax. non damay dem. <laughs> non dem waaye. waaw man njaab laay njaab. non ngay njaab tey. njaabu na làmbi feneen. njaabu. na làmbi feneen. <laughs> nii mooy njaabu na làmbi feneen. ay kon mi ngi doon. na làmbi feneen. na làmbi feneen. te <laughs> <laughs> njaabu na làmbi feneen jërëjëf monsieur le maire ñu di ko gërëm bu baax a baax El Hadj Ahmed Aidara di ko jox di daje incha allah ci euh, yeneen édition yi ñëw ak euh, revue de presse complète bi mbokk yi léegi